junjee wax ji léegi rek waxtaan bi dañ koy dooree ak mbirum Juan Branco eh, mais d'abord laataa ñuy yaatal ci li nga xam ne moo am ci mbirum Juan Branco eh, question bi bëggoon a njëkkalaaj rek mooy li nga xam ne nekk na benn polémique autour de mandat d'arrêt requête la du requête lu ñu lancé la lan nga ñu mën a wax ci mandat d'arrêt bi nga xam ne ñu ngi ko doon tudd ci ndodd kii di Juan Branco laataa muy dugg fii ci Sénégal. waaw il faut souligner d'abord que ni effectivement procureur moo ko requérir procureur moo sàkk woon ci juge d'instruction mu euh, validel ko si je peux m'exprimer ainsi mandat d'arrêt international contre Juan Branco alors euh, maintenant bi euh, Juan ñëwee période boobu noonu yëpp euh, je pense que réquisition la woon rek daf ko sàkk woon rek mais bi mu ñëwee nag ak discours bi mu àndaale effectivement loolu mu sàkk woon may nañ ko ko c'est-à-dire may boobu mu ñu ko may ci diggante bi nag mu réeral ñu bari parce que effectivement dañ ko requérir woon kese. parce que laata Juan Brancorino dañuy wax mandat d'arrêt international. boobu mu ñëw fi ñu ne léegi mandat d'arrêt bi nag. nu muy boobu balaa muy ñëw du woon mandat d'arrêt international. boobu sàkkuteefu procureur la woon. comme ni procureur di taxawee ne juge bi sàkku naa nga daanal ma nit nangam. donc ce n'est pas obligatoirement que juge bi loolu lay topp. léegi nag euh, ba mu ñëwee. Euh, ku ne dégg na discours bi mu def. Mhm. discours boobu moom moo waral ñu valider euh, ñu exécuter mandat d'arrêt international bi donc effectivement euh, li fi nekk yëpp durant tout je pense qu'il a fait une semaine ici mm. Euh, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international parce que mandat d'arrêt international mooy lu euh, Sénégal rek fépp fu mu munti nekk ci àdduna boo leen ko gisee teg kon boobu du jaar muy ñëw Sénégal pour exécuter un mandat d'arrêt international et d'ailleurs mm-hmm. fi ñu ko jàppee lu Sénégal tout à fait alors est-ce que kon bu fekkee dégg nañ ci wax bu baax a baax ngir nga leeral mbokk internet yi ñuy seetaan foofu mooy mandat d'arrêt nekkul procureur moo koy daal di Euh, daal di amal mais moom càkku càkkutéef rek la ci mën a am mais ab juge moo mën a exécuter li nga xam ne dëgg-dëgg mooy mandat d'arrêt. oui en principe su dee nag. yenn saay mandat d'arrêt procureur mën na ko joxe. mandat de dépôt procureur mën na ko joxe mais dafay parce que du procédure yëpp mooy am juge d'instruction am na procédure yoo xamante ne du ñu ubbi information judiciaire du am instruction par exemple le cas de flagrant délit flagrant délit flagrant délit amul juge d'instruction parce que jàpp ne loxo ci poste donc jarul enquête di xóotal parce que euh, juge d'instruction moom day enquêter di xóotal mhm. mais parfois infraction dina mel noo xamante ne procureur dina choisir yenn procédures yi juge d'instruction du ci am du ci am wàll. du ci am mhm. donc loolu sa reste à l'appréciation du procureur. voilà donc euh, je pense que mbir moomu leer na euh, muy li jëm ci mbirum Juan Branco ak na Dali parce que y avait un polémique mais euh, sunu juriste Pape Moussa sax indi na ci ay leeral laataa muy ñëw fii boobu ak càkkutéef la woon rek mais bu mu ñëwee ak kàddu yi fi mu jékki ko tegee loxo exécution am na exactement euh, ci mandat d'arrêt bi ah euh, Pape Moussa Juan Branco bi ñu ko tegee loxo fële ci Mauritanie gannaaw mu duggee Sénégal wax fi li mu wax ba génnaat di dem ñu delloosi ko Sénégal ba ñëwee ñu ne ñu ngi ko yóbbu rëbës. Mhm. est-ce que rëbës mën nañu faa dugal nit sans instruction ba ñu juge ko condamné ko wala sax mu nekk sous mandat de dépôt. ah bien sûr ñaata nit ñoo nekk rëbës bu sax ndeyee pour loolu la ñi ngay fekk rëbës yëpp. <laughs> à plus de quatre vingt quinze pour cent ñu ñu atteegul lañ. maison d'arrêt et de correction foofu noonu. boo xoolee ñu ñu àtte ba daal la ñu ngi. cap mais li xaw a kii si foofu kaw Juan Branco mooy dañ ko jàpp rek yóbbu rëbës boobu amagul interrogatoire amagul instruction. si si c'est-à-dire du procureur. Mhm. directement la dem ci juge d'instruction. Juan il est allé directement ci euh, juge d'instruction. Mhm. donc loolu moom moo waral. Mhm. effectivement juge d'instruction. Euh, déglu ko moo fanaan ñëwaat. donc le fait que Juan Branco ñu jàpp ko rek mu de particulier. <laughs> non non non c' est le cours d' d' d' accord ci ñëw euh, mais Juan Branco euh, gannaaw euh, chef d' yi nga xam ne moom la ñu ko toppee ba janoo ko juge bi may ko ak tekk tekkaaral bu dut sa la lutte dañ ko inculpé place ko sous contrôle judiciaire delloo ko passeport am daggal ko bi avion mu ñibbi lan nga ñu mën a indi ni ay leeral ci environnement boobu ñu placé kii di Juan Branco sous contrôle judiciaire placé ko sous contrôle judiciaire euh, mu war a nekk une liberté limitée mais jamono boobu moom dañ ko delloo passeport am na ko génn réew mi dem ñibbi fële mi dëkk muy France. xam nga euh, loi wu Sénégal yoonu réew mi daf ne. Euh, bu ñu la toppee article yi nga xamante ne moom moo jëmee ci cinquante cinq ba foofu noonu juge d'instruction amul beneen pexe lu dul placé sous mandat de dépôt amu si beneen pexe donc kon buñ doon topp rek loi mhm. juge d'instruction amul woon benn pexe si Juan Branco lu dul mettre ko su mandat de dépôt mandat de dépôt kese la ko mënoon a def directement direct parce que boo xoolee Ousmane Sonko bi euh, procureur jugé euh, visé infraction yooyu dama ne woon ne mu amul leneen lu muy def lu dul mettre sous mandat de dépôt. parce que foofu le juge d' instruction a les il n'a pas euh, benn champ d' appréciation yoon daf ne ko bu procureur visé infraction yi jëm ci article cinquante six ba cent article yi nekk ci yooyu yëpp. bu ñu ko ci laal ba ngay mettre sous mandat de dépôt. Juan Branco bokk na ci ñu koy toppee appel à l' loolu article quatre vingt cinq la xam nga mu ngi ci diggante bi ma la donc kon 55 ba 100. donc kon 85 ba ju juge d'instruction bi moom amul woon benn pexe bu dul mettre euh, Juan Branco sous mandat de dépôt mais mooy li ma la wax. alors kon lan moo particulier. patate chaude ci Juan Branco tax ma ne la patate chaude parce que mhm. euh, maître Branco avocat la. Mhm. mais ñëwim fii tamit mën nañ ne ñëw bi rax na maanaam avocat plus parce que n'oublions pas que c'est un acteur politique. Mhm. c'est un activiste. en principe avocat étranger bu ñëwee Sénégal li mu war a njëkk a def mooy dem ci bâtonnier def visite de courtoisie bâtonnier domicilier ko ci benn cabinet pour mu mën a plaider maître Branco ñëwam bi mu ñëw boo xoolee man maa ngi fa woon fa ma fekk moo tax je n'ai pas compris l'arrestation de maître Babacar Ndiaye parce que maître Babacar njaay fa ko fekk man mi Juan Branco fa la ko fekk Juan Branco fa la ko bàyyiwaat ma euh, man ak maître Babacar taxaw nañ presque 30 minutes avant man may dem donc kon andiwul Juan delloowul Juan naka lañ def ba ne moom dafa laale ci ñëw Juan jaaxal la ba mais boo xoolee ba euh, maître Branco yegsee taj rek. mais mën na faa mën mën nañ faa bañ a ñëwandoo mais mu jàpp ci jumtuwaay yi ko fi dugal. ci naka prouver ko at ñu dem. non je veux dire. loolu moo yomb déggante mën na am loolu moo yomb mën na am déggante mën na non yooyu nañ bàyyi yooyu foofu la ko Juan fekk fa la ko Juan bàyyi te dañ ne oto moom moo yóbbu Juan. man ak moom fa lañ toog ba xuwaan dem yoonam ñu soog a dem suñu yoon waxtaan nañ lu yàgg. donc kon gisuma lenn loo xamante ne. Euh, maître Babacar et eh, kon euh, ci boppam boo ko te mu ngi woon seen loxo. noonu ko laaj kan nga dugg. moment boobu noonu jàpp naa ne surprise bi avocat Ousmane Sonko yi wane pour man yëguñu woon ñëw xuwaan. parce que ne moo yoroon kàddu jamono il a été perturbé. voilà. Mm-hmm. donc kon Juan deful li nga xamante ne moom mooy les formalités nécessaire dem ci bâtonnière bu sinon bu ko defoon ñii dinañ koy donc kon il est venu fekk leen ci communication ñu ngi doon wax ci mbirum Ousmane Sonko ak arrestation moom mu ñëw pour dire au procureur je suis là je n'ai pas peur donc kon xam nga ne ñëwam am na une autre connotation donc moo tax ma ne il a réussi son coup médiatique il a réussi son coup juridique mais il a réussi aussi son coup pratiquement après ñëpp Juan leen doon wax. tout à une semaine mu toog ko ci réew mi defi vidéo nangam tey kenn mënul teg loxo Juan kon du gëm. tegoo ko loxo kanam mu joxe indice ma bërëb sangam. fi une semaine. Mhm. kenn tegu ko loxo Juan génnaat Sénégal kenn tegu ko loxo. ñu jàpp ko andi guidé voilà dañ koo jàpp andi loxo. mais mettre ko sous contrôle judiciaire ba pare delloo ko passeport am dangal ko moo tax ma ne la moo tax ma ne la est-ce que ce n'est pas la patate euh, Juan est chaude. parce que Juan lii mu fi wax saay bu ma ko waxoon tamadu ma ëpp yi buum loolu moom mooy la réalité. mais est-ce que juridiquement parlant loolee mën naa nekk. déggoo li ma wax juridiquement parlant dañ ko doon mettre sous mandat de juridiquement parlant liñ ko doon toppee mandat de dépôt obligatoire la woon mais Juan du pas Moussa Sow du nit dof. mais hormis hormis. mandat de dépôt Juan du Babacar Ndiaye du. Euh, nekk kaso ba mais yeneen chef d' mhm. yoo xam ne mën nañ ko ci inculper mettre ko sous contrôle judiciaire. contrôle judiciaire est ce judiciaire n' est pas mooy justice bi di la contrôler. est euh, condition bi nga xamante ne moom mënul ñàkk ci contrôle judiciaire mooy dossier bi ñu la mettre sous contrôle bu ci waxati Juan daa yegg dëkkam rek tàmbali wax ci lu parce que moi l'expression il s'en fout du contrôle judiciaire quoi nee la Juan du Pape Moussa Sow lii bu ma ko waxoon nii saa yi tama du ma ëppi bu mu alors mais Bara nii li nga li nga li ngay wax léegi euh, yenn euh, yenn chef d'inculpation yi wala sax yenn infraction yi su ko procureur visé ci réquisitoire am juge d'instruction bi il a les mains liées directement mandat de dépôt la la yóbbu est-ce que loolu kaw euh, Juan Branco waru ñu indi ñu relativiser ko tamit bon surtout que su fekkee. le juge d'instruction. man est-ce que mënuñu ko gën a may doole. réquisitoire bu procureur su jàppee ne euh, li muy visé ni même su jaree mandat de dépôt mais su ko andilul ay éléments début de preuve yu ñu mën a toppee di carrément. man fii fekk damay dem fu gën a sori. Mhm. que ne procureur. juge d'instruction du ñoom ñoo war a saytu ku war a dugg prison ak ku ko war a dugg. il nous faut une ju un juge. Euh, de la liberté. de et de la détention buy apprécier souverainement kan moo war a dem ak kan moo warut dem. parce que le procureur a beaucoup de pouvoir ci système judiciaire bi beaucoup de pouvoir mën na nit sax repre joxe toutes les garanties de représentativité ñu may la liberté provisoire procureur bu defee appel da ngay toog le procureur a beaucoup de pouvoir te nag euh, Babacar xam nga coow li coow lan la ku ñuy may liberté provisoire wala ñu lay mettre sous contrôle judiciaire li ñu war a njëkk xool mooy ndax am nga toutes les garanties de représentativité maanaam saa yuñ la soxlaa dinañ la woo saa yuñ la soxlaa dinañ xam fuñ la jëli fan ngay Juan Branco ne donne aucune garantie de représentativité Juan du moom moo leen di wuyu. lan nañ mën a xaar. parce que koo xamante ne une semaine nekk ak yow fii. Hmm. mënoo koo gis mënoo koo teg bët nga koy wër kon xaw xam nga ne boo ko soxlaa ne ko ñëwal xam nga ne du ñëw et pourtant Cheikh Bara Ndiaye donne toutes les garanties de représentativité hmm. te pourtant mi ngi ci prison pourtant Ousmane Sonko bu ma fi cité fii la ñuy fanaan ñoo xamante ne il donne des garanties de représentativité ñu tëbu ay maire ñoo xamante ne dañoo yor euh, exécutif local Ousmane Sonko du daw du génn fenn moo gënoon yaay ci contrôle judiciaire que Juan Branco parce que Juan nee naa la une semaine lañ ko toog di ko wër ci réew mi. muy njuuy gaay alors est-ce que dossier Juan Branco lan lañ ci mën a xaarandi ni ëllëg. dara judiciaire bi mën a. pour man pour euh, man buñ ko soxlaa mën na fi ñëw wala ñu jël dossier bi yóbbu France ñu àttee ko. Eh, Babacar bay wéy na mbuus Juan na. ah mais dossier baa ngi fi en instruction. nee na bu ko neexee ñëwaat. ah non euh, dossier baa ah, nga euh, mu ngi instruction mu ngi fana normalement coopération judiciaire mënoon na permettre juge d'instruction bi bu ko soxlaa. ñu woo juge d'instruction bi nekk France pour mu déglu xool loolu mën na nekk. déglu ko envoyé contenu. de waaw mën na nekk. mais maa ne la béy wéy na mbuus dootoo si dégg dara. jàpp nga ne daal boobu dossier c'est déjà wéy na wéy na Juan wéy na. d' euh, euh, loolu di ay leeral yoo xamante ni il fallait que ñu indi ko ci mbirum Juan Branco ak euh, liñ ci doon tudd muy mandat de rek yu nu mel Pape Moussa bu ñu wax Juan Branco na xel day dem ci Ousmane Sonko. te hmm. moom avocat wu kii di la. Euh, jamono jëlee moom moom it mu ngi ci prison bi sous mandat de dépôt ak ay chef d'accusation yoo xam ne euh, chef d'inculpation yu toll ci huit euh, mu nekk ci benn grève de la faim ba ba lott bi yegg ci lool sax gis nañ jëm xibaar bi nga xam ne kenn ci avocat am di maître Cheikh Khoureyssi Ba joxe na ko ci mbiru Ousmane Sonko yow nga xawa a maîtriser secteur wala sax nga maîtriser secteur boobu laa wax nga baal ma lan nga ñu mën a wax lu yes ci mbiri kii di Ousmane Sonko. non man xam nga euh, mbirum grève de la faim bon euh, je sais pas parce que ñii ngi wax lii ñii di waxee ne euh, je touche avec des pincettes mais man dama jàpp ne ki nga xamante ne moom moo nekk sous les liens de la détention kooku mm, marge de manœuvre am ci résister bëriwul presque méthode de résistance bi ñuy am rek moom mooy grève de la faim mais man dama ci d'accordul parce que euh, déjà prison metti na condition yi doy na waar l'univers carcéral au Sénégal c'est catastrophique parfois même je me demande s'ils sont privés de liberté ou de dignité doy na waar mais nga bëgg ci boole xiifal surtout ñi nekk ci jet noir man dama leen di woow pour ñu teg loolu ci suuf parce que non seulement